Merci de nous recevoir dans l'émission Réumi People, amis auditeurs de la radio Réumi FM et téléspectateurs de la chaîne Réumi TV. ndaanaan yi émission gi ñëwaan na kon ngeen mën ko teew lu léegi léegi tey suñu invité mooy Marfous le comédien l'homme de de caméra cachée moom la ñu nar a am mbégte dalal kon ci suñu plateau waxtaan gi léegi lay doon. laata ma ko jox mu saafonte ak nuyoog ñi nga xamante ni ñoo koy teewlu ak di ko seetaan ma jox sama binoom ji lu bees. waaw ça va Mimi maa ngi lay bu baax a baax. naa la de samedi passé dag ma pont. waaw mhm. en tout cas. dégg gaa yëpp di teewlu réew mi. re bienvenue. Mhm. alors Mahfous ça va Lou'Bess c'est un grand plaisir de t'avoir dans notre plateau. Bon, salam alaikum à toutes et à tous, comme j'ai l'habitude de le dire. Ah le plaisir est là. En fait, je suis très content de nous émission bi, Réumi TV, di nuyu képp kuy seetaan émission bi di la wax merci beaucoup sa soutien. Mhm. yàgg naa gis vues yi ak pouce bleu yi et tout quoi yaa ngi gën a xam. t'es souvent aussi calme on dirait pas. bah je suis calme sauf que quand je cache une caméra je suis plus calme. <laughs> donc euh, je t'appelle comme ça sax c'est l'homme de caméra cachée Doudou xam nga ni yow sonal nga askan bi Mahfous Mahfous bon c'est la même chose parce que maag Doudou ay frère rek donc ay gaañ ngeen apparemment parfois dañ koy gis naan ko Mahfous parfois man damay nekk si mbedd bi sax gars yi naan ma Doudou mhm. tu vois donc ce qui veut dire que y a une bonne liaison mhm. très positive entre lui et moi et ce qui veut aussi dire que Sénégal lépp benn la quoi mhm. D'accord. Alors, euh, pourquoi le concept de caméra cachée Bah, juste que, tu vois, en fait, euh, moi, j'avais l'habitude de faire des vidéos comme, euh, comme tout le monde, tu vois. Mhm. Donc, mm -hmm. vu que je fais partie des pionniers euh, de la comédie, pas comédie sénégalaise comme comédie Nkaideg, mais genre des youtubeurs, quoi, tu vois, et tout ça. Donc, moi, je faisais des vidéos comme eux. Après, à un moment donné, il y avait une toile de youtubeurs chaque un mois, tu vois un nouveau youtubeur qui vient, qui apporte sa touche personnelle, modifie affaire et tout. Mm -hmm. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas ne pas être différent, quoi. Mm -hmm. Ne pas un peu me, me, me, me, focaliser sur un autre truc, tu vois. Un peu d'un benen côté. Après, c'est là que j'ai commencé à faire des caméras cachées. Au début, c'était pas facile. Les gens mm -hmm. vont dire, c'est pas les mêmes réalités, mm -hmm. tu vois, les mêmes cultures. Mhm. Après, il euh, y, a, y, a tout ça. Mhm. Mais vu que Bob quand, quand on fait un truc, on, on essaie de, de, de, faire ça bien et mm. d'adapter ça avec les réalités sénégalaises, culture sénégalaise et autres, tu vois. Donc, ñu ngi sant yàlla ah. Mm-hmm. di sant yàlla sant yolante bi ci julli si comprends nga. Mm-hmm. si di sant ñëpp daal tu vois. très bien parce que euh, lu tax ma laaj la loolu mooy euh, euh, ce cette comédie là ce type de comédie là à l'étranger lañ ko doon gis ci tubaab bi les dimanches gag yi doon jàll. Mm-hmm. ñuy gis yooyu c'est ça qui t'a inspiré. quand je dis que c'est pas ça qui m'a inspiré je serais un grand menteur. Mhm. comprends et quand je dis que c'est ça qui m'a inspiré je serai aussi un grand menteur donc je vais dire que c'est ça qui m'a inspiré en même temps di di profité di ko wax ay ñoom Makhouda Diagué ñoom Baye Peul dina rendre hommage tu vois parce que c'est des c'est des c'est des c'est des vedettes yoo xam ne ils nous ont marqué ils m'ont marqué moi quand j'étais petit. Mhm. mais tu vois donc à un moment donné moi je faisais comme eux au début mais après boo gisee moo di caméra cachée juste pour mon gars que. ce que les blancs savent faire ñoom li ñu mën a def nañ ko def. Mhm. parfois on est dañuy dañuy dañuy am benn problème mooy manque de moyens mais on a la chance que tey ay téléphones yu bëri mën na génn man dama doon àbb téléphone jàmm pour def benn vidéo. Mhm. mais dama koy delloowaat xuloon naa seeg sama tante xeex naa moom ba samp jël téléphone am muy nelaw muy sieste mu profité dem. génn tourner ci vidéo. Mhm. effacé publier. comprends ñëw genre tu vois donc juste pour dire que buñ toog naan on n'a pas de moyen on va pas produire comprends mm-hmm. donc Camara Cassé ça vient pas de presque si ay ñoom Rémi Gaillard mm-hmm. ñi nga xamante ne c'est des Français yoo xam ne ñoom de ouf de niveau seen bopp fi ñuy xalaatee ñoom duñ lijjanti ak culture man nag tey sama nekk si benn dëkk boo xamante ne tey lu bëri boo gisee du ma ko sañ def culture yi mm-hmm. respect aux cultures respect aux traditions moo tax mais tey ñu ngi ñaan yàlla tey tamit buñ demee ba si kanam kanam gars yi ko tàmm ñu commencé def yeneen affaire yoo xamante ne dañ koy def sans heurter la culture ak la la tradition. parce mhm. que c'est très important loo xam sama papa daf ci bàyyi xel sama maam di ci bàyyi xel. Mhm. man foog ma ci bàyyi xel. Mhm. man li ma koy laaj mooy kan moo kan la njëkk a def ay vidéo moom mu tëdd euh, di ko def di ko dugal ci web bi wala da nga ñëw euh, fekk fekkoo kenn di ko def nga ni xaaral ma def lan moo la mhm. bon ok bon je dirais que man dama yàgg comique ah, def ay affaire lu lii nii dama daan dem classe di tooñ sama prof ñu may dàq di ma convoqué et tout comprendre nga mais dama doon toog nii quoi di foo ak samay xarit yi di toppandoo jigéen ñi bu ñuy mooy temps Facebook bu ñu door a bees bu ñuy def vidéo bu def ay photo di ko dugal genre nag sama benn xarit moo doon caméra après mu dugal ko Facebook gars yi naan non ñii di xas ñii di saaga mhm. temps daaw ma am 4 j'aime dugal ko ma am si 37 jëm xaw ma. loolu ban année la. c'était en début 2014. début le 1er janvier 2014 le 31 décembre 2013. Mhm. le 1er janvier 2014 boobu la tu vois donc d'ici là foofu il y a 6 ans presque. Mhm. comprendre donc si année boobu la woon quoi après gars yi commencé waaw li am na après si laa defaat benn vidéo l'eau l'eau est là l'eau revient gars yi ma commencé am ay 100 j'aime ay 20 mille vues ak yooyu. ma waaw gël yi ma doon bind message ñu may vu duñu ma tontu commencé ma bind message <laughs> comprendre xam nga rek temps booy quoi yooyu après da lay da lay lii quoi mm-hmm. ça t'a motivé ça m'a motivé après tu vois genre yooyu ñuy commencé def ba sant yàlla rek gars yi di commencé di xam mm-hmm. genre yooyu mën si yow lañ ko njëkk a gis Sénégal mm-hmm. youtubeur boo xamante ni bi ngay pël xare bi Mhm. après ñu gis sa doomu ndey duudu ñëw moom it. Mhm. di la wéttali ci xeex bi. ñu def muy naaj xam mhm. mais dañ gis jamono bi ñu toll gis yeneen booy yu fël. booy yi di gën a bëri. yéen du ngeen toog di gis booy yi di fël di gën a bëri gars yi di leen bii gaa yi bëgg leen. que du ngeen xaw a tiit tuuti. non contentement lañ ci am parce que tey su ma demee. bay def benn affaire. Mhm. man ma bokk ci pionnier yi. mais vous vous sentez concurrencé quand même. concurrence la mooy concurrence. Mhm. c'est quoi la concurrence moi en fait moi je comprends même pas la définition de du mot la mooy concurrence mën nga ma ko jox. concurrence laajaat naa la ko. concurrence la concurrence. donc man en fait tu sais bien ce que c'est. en fait ça fait pas partie de mon dictionnaire man sama dictionnaire concurrence amu si. Mhm. parce que man dama jàpp ne xam nga la fa laay concurrencer su may julli. man parfois yàlla ma yàlla baal su ma waree julli man non naa bàyyi ba dem kër ga. gis sama benn xare bu jàpp julli automatiquement. da dama naan non kii kii waruma gën a jege yàlla. Mm-hmm. foofu damay concurrence ak moom. mais à part ça parce que yàlla dina kontaan. kii julli na man julli naa comme man foofu laa jàppee concurrence. mais à part ça yeneen moom parce que dama jàpp ne yàlla may. Mm-hmm. man je sais am na lu ko yàlla may. Doudou Fay vidéo am na lu ko yàlla may dama koy nangu moom xam na ne am lu ma yàlla may daf koy nangu. Mm-hmm. bu ko bañee daf si sonal boppam rek man su ma ko bañee daf si sonal boppam parce que Doudou c'est un frère parfois les gens ils ont tendance à dire que ñu ñaar ay concurrent la non never we are not concurrence man you know what I'm saying. nekk tamit c'est normal gars yi xalaatee noonu il faut ngeen nangu loolu mën na Balla Gaye la gars yi di wax. waaw ci côté comédie yi. mais vous êtes des rivaux. mais mais Modou Lo Balla Gaye ñoom dañuy bëre dañuy dóorante dañuy xeex. man ak Doudou bëree ñu dóorante. même bu ñu bëreewul sax gars naan naa. non lool fait loolu public moo koy indi public moo koy indi parfois ngis benn gars yi ñëw Doudou dugal benn vidéo kenn ñëw ne. Mhm. Mafus def na ko pare wala Mafus def na kenn ne Doudou moo ko daax Doudou def na ko pare mais lui moo on s'entend on s'appelle on se parle chaque instant. Mhm. donc concurrence. amul suñu diggante. d'accord la concurrence peut boo être saine mais quoi qu'on puisse dire kenn ci moroomam bëggul keneen ki raw ko faut l'accepter. man su ma sañoon tey di man su ma sañoon tey jii damay def vidéo boo xamante ne kenn du ko mës a def si àdduna. boo sax ñoon koy vu waay. comprendre nga. Ah. léegi moom moom ñun ngay door non non non non même pas non il ñu. nee na bu sañoon. def vidéo boo xamante ne waxuma duuru de mais si monde bi laa wax si monde bi tous les comédiens. Mm-hmm. comprendre nga te j'ai réussi à faire genre vidéo yu mel noonu. Mm-hmm. yoo xamante ne ça a touché le monde. Mm-hmm. ay Tom et Jerry ma koy def version africaine. ma nekk Tom booy bi nekk Jerry. ba ba Wizkid partagé ko. Morgan Heritage partagé ko. tu vois. Mhm. donc c'est des yoo xamante ne ku dem ba def loolu ku dem ba def loolu quoi. Mhm. donc am na lu la yàlla may. donc doo fi nekk di concurrence la mooy concurrence xam nga si man kan mooy concurrence ku tiit mooy concurrence. Mhm. ku ragal ah. mais ku xam ne am na talent nee naa la tant maa ngi nooy <laughs> tant que maa ngi yow feebaruma am caméra wala téléphone mu tourné ragaluma dara. non sérieux ragaluma dara. dafa am lu daan gis nga koy def gisatul ko mooy solo mhm. <laughs> doon sang gone gi ci paan bi. non mais mais il faut le dire aussi vidéo bi dem na ba am 9 millions de vues. j'ai ah, adoré. comprendre vidéo cette vidéo parce que c'est une vidéo qui a touché tout le monde. qui mais quel était le message quel était le message. bon le message c'était un message très positif parce mhm. que. peut-être ni ma doon sange xale bi ni ma doon sange xale bi xaw ma koo rey c'était un depuis loolu xale bi dafa set depuis loolu sanguwul. mais 9 millions de vies. comme naa nga. c'est 1 million de vies. ku nekk 10 millions de mimi. 9 millions de vies day laaj gis. Ah, xaaral xaaral xaaral <laughs> xaaral mu ñëwaat si question boobu ni nga vidéo boobu noonu ah. Uh-huh. juste pour dire que vidéo bi euh, j'ai lancé un message. Uh-huh. parce que y a des y a des Français qui nous suivent y a des Américains qui nous suivent ñoom xamuñu genre sang yi. Uh-huh. tu vois. Et moi, je voulais, je voulais aussi montrer à la nouvelle génération comment nous, on nous lavait. Mhm. Ça existe toujours. mais juste pour montrer ñun suñu yaay yaay africain yi dañ dañ bëgg seen doom yi. bu ku sa sa yaay bu sa doom jàngi mooy dàq mooy gën a set mooy gën a xeeñ neex. Uh-huh. donc man vidéo après dafa ma ëpp doole sax dama ko def ba pare après si laa gis le message. Mm-hmm. comprendre commentaire yi ñu naan comédie rek la si dugal. comédie rek et c'était vrai parce que dañoo toogoon nii am benn boy école du waa benn boy yaayam di ko wër waaye Aliou romb lañ fii. ah gis ñu Aliou de Aliou sang lay daw depuis tey suba mais su ma ko jàppee ba dugg si paan naa ko rag rag yoo xamante ne automatiquement mooy question moo la laaj sànq idée vidéo génn dañ doon play mhm. ñu teg mane ci ut benn Aliou ma sol ndoket dugal ko si paan bi rek commencé sang ñu dugal ko après mhm. monde bi presque ñëpp jot nañ si ku nekk da nga koy seetaan chaque instant mhm. di nga son mas defoon son maadaba sama doom jàngal soo maagee imposé di profité di béggee maadaba maadaba tamit di ko dekkilaat ko mais ñu bëri fan man maa way way bi mooy génération tay pour ñoom maa way way bi parce que xamuñu maa daba comprendre nga donc y a y a le message en tout cas était fort et c'est passé quand même. Mm-hmm. alors revenons au concept de caméra cachée là Doudou tu sais. Marfous. benn la voilà bu la ñu sax ma Doudou amul problème ñaar la ma moom benn la. léegi ce que je me disais mooy nii. xëy na balaa ñoo caméra nit ñi dañ leen di euh, aviser au préalable ça se passe comme ça ou bien. non. dañ di ñëw rek teg seen caméra. moi je prends des risques ah. man y a des risques est-ce que yow mosoo ci am mauvais incident mosul am un événement malheureux parce que am na ñoo les personnes ne sont pas les mêmes. Uh-huh. est-ce que doo caméra nit ki ba quelque chose am loo xamante ni na ko ci mu am lu xew est-ce que c'est une fois arrivé. Euh, waaw bon mos na arrivé ah am na benn gel buñ tiitaloon mu mel ni lu xam. Mhm. après automatiquement moo sam benn xarit docteur mu ñëw comprendre mu mhm. examiner ko après mun nañu li ngeen koy jëndal ñu jox ko mu jënd ko après mhm. ñu koy seeti ba elle va bien. maintenant elle est une grande fan. tu vois donc après depuis jour boobu laa wàññi di tiital jigéen. léegi su ma tiital ay góor yàlla rek laay tiital xam naa seetlu nga ko vidéo mi tiital ay góor laay utiliser parce que jigéen comprendre nga genre yooyu man su ma def caméra cachée. nit mënoo ko ñëw ne ko grand jaaf waay dama bugo nga jouer lii caméra cachée. c'est pas ça ça reste plus une caméra cachée. Mhm. je vous dis un truc caméra cachée yu bëri yi nga di seeraan yu baptu yi di def. ñoom c'est équipe la de benn équipe ñooy ànd dem def ko de. c'est ça. benn équipe mu ñu ànd dem def ko. waaw après parce que di nga ñëwaat réalisation bi ça ça ça se passe comment. mais fini finissons avec euh, l'incident avec la fille là. Exactement, comme mm -hmm. genre après on a dem seeti ko ba après mu nekk une grande fan tu vois genre mhm. man suñu def caméra cachée man maay observé ki ñuy jouer man ne kii la ngay jouer man yàlla may na ma ma xool nit su ma xoolee nit bu dee policier nga wala genre koo xamante ne waroo feeñ wala genre yooyu man automatiquement jànguma ko quoi mais peut-être yàlla may na ma ko su ma xoolee nit dox rek naa xam kii war nañ ko jouer wala waruñu jouer ak moom comprends nga noo ko mën a détecter ñëpp nag peut-être benn doobu nekk si man la rek mais après ku jouer nag <laughs> kuñ defar caméra cachée maanaam kuñ joué buñ buñ la utilisé. Mhm. boo nee ba fële y a un gars qui te dit que caméra cachée la woon bu dee permettre nga ñu ñu jël sa image. Mhm. ñu jël ko am nañ benn formulaire. Mhm. nga lire def sa tour signer après man ak sama équipe suñu baaxaay ñu may la dara boo dox boo joxe boo ñu joxe accord ñu jox la dara ne la amuñu nag quoi dañuy ut rek ay jeunes lañ. ñoo ko teg si bi parce que boo seetloo utiliser ñi may jouer caméra cachée c'est des gens yoo xamante ne ils pas assez fortunés ils sont pas ils nagent pas le bonheur c'est des gens yoo xam da nga xam ñii ils sont à de quelque chose mhm. léegi ñooñu après am ñu teg seen loxo je dirais pas la somme wala genre yooyu comprendre mais dañuy signé wala parfois ñu ne waa ok on est d'accord may leen su image boo ne may ñu damay ànd ak yow ba si oto bi wala si caméra bi nga xool séquence bi ñu effacé dañuy ñëw rek jël ñëw rek dugal comprendre nga genre yooyu am na benn vidéo mu doon def mooy ëmbal bi bii gel bi di romb di jinne yaa ma ëmbal am benn paa bu romb di seeraan paa bi dafa romb rek di seeraan de bu bokk si vidéo bi nag chaque jour doom boo ma dama dama lay plainte sama pap mu ngi si vidéo bi feeñ na dindi ko dama lay plainte sama mu ngi si vidéo bi feeñ dindi ko dama lay ma ne ko non dindi moo ko parce que dama ne ko je suis vraiment désolé mais la cible n'était pas ton papa mm-hmm. certes tamit waroon naa am autorisation si koñ boobu di tourner mais si nekkoon papa mais papa ñëw na si vidéo bi feeñ na si te ku sañoon tamit sa papa du feeñ si vidéo ñu koy jël comprendre mu doon loo xamante ne ça m'a vu un benn dilemme dindi ko bàyyi internet ju reetaana ci war ma bàyyi ko chaque jour su ma ko essayé dindi YouTube day bañ d'accord ok boo yaa ngi seen affaire bi je m'excuse vraiment vraiment vraiment wala doom ji ngay baax. waaw naa du ko seet mais doom ji maa ngi jégalu. mais man mos am naa ci benn boo xamante ni waa ji xamu ko université la doon dem. Hmm. même yéen a ngi naan ko sax euh, caméra kasa la mais waa ji mënu ko woon naan non damay ko non caméra kasa ah, mu ngi tudd Mame Baye di bëgg tamit Zé parce que Zé moom mooy sama nouvel élément bi def caméra cachée yi. c'est mon nouvel élément donc mhm. un gars très comprends très il a il a, il, il, il a toujours été un homme de l'ombre mhm. c'est comme je t'avais dit moi je vais toujours avec les gens avec qui j'ai commencé tey ñi ma commencé rek laay ma àndal di dem comprendre dina am ay xarit yu bees dina am ay nit yu bees mais tey lépp lu may def ñi may commencé première vidéo ba tey ñoom laa nekkal di ànd ak ñoom muy tumaani mhm. grand mari xam na li may wax comprendre mu ñeneen ak ñeneen donc Zé di ko bëggee parce que tam apporté na touche am te il est aimé maintenant gars xam nañ li def et tout caméra cachée ñun jugu ñu si pour manque de respect kenn. Mhm. parfois ma ne benn caméra ka gars yi ma yaa ngi tardel taximan bi. c'est ça te kii day liggéey joxoo ko xaalis. Mhm. mais su ma koy jox xaalis est-ce que dafa laaj ñu caméra ko ma jox ko xaalis. non non. Mhm. moi je place des gens là au fond du quartier au coin du quartier ak au coin bu ñu pare dañ lay arrêté ne la lii la doon joué bu dee taxement la soit ñu jox la 5000 ça dépend du minute bu ñu bu dee 8 minutes lañ def 8 minutes fii ak Dakar ku la jox 5000 baax na. waaw 2000 sax baax na. comprendre ba pare après ñu récupéré numéro taximan bi man samay xarit leen de dañuy wootante envoyé ma vidéo yi ak yooyu comprendre donc jusque peut-être devant la caméra gars yi ko seetaan duñu gis ni mu fa mhm. demee. Mhm. mais après. Mhm. ñoom dinañ comprendre et j'ai pas besoin de def di joxe xaalis di ko filmer. c'est pas une belle image pour les enfants. xaalis boo ko bëggee da ngay liggéey. donc il faut éduquer te boo éduquer nag foog nga éduquer comme comme comme ni nga war a euh, jum naa damaa def. comme il faut waaw ouais, d' accord léegi euh, yan retour ngay am comme sànq li nga doon wax est ce que des fois duñ ne kii dafay yabaate quoi. t' as genre de. mais chaque de jour, réaction mais chaque qu' est ce qu' on dit qu' ce qu' te reproche exactement. man lii du mentalité sénégalaise. loolu muy wàññeeku sax parfois ma def benn vidéo sonn si lool dem tourné ko benn waay ñëw rek toog bés feek dañ ko tourné neexul da ngay sàcc ak bañ loolu. Mhm. nit ku ñuul man ma ñuul. di xeexal couleur africaine di xeexal der nit ku ñuul di wan gaaye que liñ mën loolu moom na neexuma quoi man mën nga ma saaga sax du garaaw mais nit koo xamante ne ah c'est un gars de rien du tout. aw ma dara mais koo xamante ne day fight pour gars yi respecté leen si kaw yow nga ñëw di ma di ma gënal ak tubaab bi. complexe. xoolal Cheikh Anta Diop ah Léopold Sédar Senghor c' est des gens noirs. Mm-hmm. Lumumba ah Nelson Mandela c' est des gens noirs yoo xamante na mm-hmm. ah. Sankara et wa plein plein. ils ont pour la couleur noire. Aline Sitoé Diatta xoolal bëri na quoi may Mariama Ba bëri na ñoo xamante ne. Lamine Gueye wala bëgguma di cité quoi Thierno Seydou Nourou taal bëgguma bëgguma bëgguma di di di limee parce que ma bàyyi kenn quoi comme naan Cheikh Amadou Bamba dañuy jaay intellectuel non non Cheikh Amadou Bamba euh, kii Martin Luther King comme nga Seydina Limamou Laye El Hadj Ahmed Tidiane Baye Niass ñoo ñëpp c'est des gens yoo xamante ne ils se sont battus ils se sont battus donc man tey ñooñu yemu ma leen mhm. man seen esclave la mhm. yemu ma de mhm. mais man durant mon existence bi ma fi jot a jaar si àdduna naa jéem a def loo xamante ne suba tubaab bi dina respecté nit ku ñuul gi. mais parfois da nga gis benn booy ñëw ne non da nga ko sàcc ci Ibra TV. kañ mooy Ibra TV benn tubaab def vidéo te man ma yàgg def ay video man yàgg naa def ay vidéo yoo xam ne damay dugg ci net bi après may dugg ci net bi gis ne tubaab bi ci man la ko jëlee mais ñoom ñoo ñu ëpp wifi ñoom ñoo ñu ëpp nit ñoom bu ñu ko defee ñoo may ëpp vue du benn du ñaar barki xolo billah barki sëñ bi du benn du ñaar ma def ay vidéo de ay vidéo gis xëy gis tubaab bu ko def man ma ko defee y' a quatre ans. tubaab bi def na ko y' a deux semaines am ci deux millions de vues. comprends. doole yemul yow quoi. vidéo yi. waaw a yeewu xam la ci gaa yi mhm. ci yeewu gaa man dama ci teel a yeewu ba pare dem jàngi ko. jàng fan la comédie jógee comédie mu ngi juddoo Angleterre. Uh-huh. vers les mille quatre cent mille euh, j'oublie un peu la date excusez su ma juumee. c'était un roi benn buur boo xamante ne il voulait faire passer des messages à la population. bu kenn saw si mbedd bi. day jël benn pitre teg ko si kaw scène bi ne ku saw dañuy dagg sa lii. kooku day ñëw jouer ko de manière comme naan comme clown. comique mhm. pour population dañuy reetaan nag kontaan. ay boo seen ay Game of Thrones da ngay gis yooyu. parfois day am genre yooyu comprendre nga. genre mhm. donc man ci li ma nekk dama dem ci gëstu chaque jour damay dugg Google. Mhm. xool ben affaire ci comédie. jàpp ko sama bopp bindu ko note pour ma invité télé. ma défendre sama bopp toog su ma toogee ku kii mu posé ma ne ma fan la comédie jógee mhm. donc buñ buñ ci dugg nii parce que dugg nañ ci def nañ benn buzz vite fait mhm. gars yi di wax nga commencé am gel wala a après da nga ci loolu la a fay da nga ciy gëstu di si jàng mhm. yow tey yaa ngi posé question parfois da ngay xool yeneen journalistes yi comment ils font tout à fait parfois nga dem sax Soudan wala Amérique xool. pour parfaire pour parfaire. Mhm. loolu la ñuy oowee ressource. ñu da ngay ut ay ressources. Mhm. man noonu laay doxee quoi. est-ce qu'au Sénégal y a des écoles ou des lieux yoo xamante ni ça permet aux à ceux qui aspirent à être comédiens dem fa pour professionnaliser wu. bon il y a des écoles de théâtre ah je pense il y a des écoles de respect à, à, qui le font. Mhm. mais parce que xam nga euh, man dama bëgg Sanex dama bëgg Kouthia dama bëgg Sëñ Ngagne. dama bëgg Diop Fall Ndiol toj toj ñooñu ñëpp. parce que tey ñoom li ñuy def c' est des est des c' des as de pique si seen domaine. mais ñun tey dañoo révolutionné indi lépp ci internet. man ak duuru ak autre donc ñun tamit foog gars yi jox ñu cër boobu comme nga. di jàng tamit di gësu comme ñun di xam yenn affaires yi nga jug nii rek def benn vidéo def benn deux mois neex na trop. c'est facile neex na. Mhm. Sénégal moom bu ñu la xasee ba tóoj tóoj nañ la. mais après da nga essayé garder cap bi. man depuis six ans maa ngi fi du ma dox si benn gars yi ne ma booy xam nga bàyyi vidéo non dugguma si dara xasuma kenn man booy lu ñuy def j'aime bien dama si reetaan mais nañu essayé téye cap bi nañu essayé téye cap bi nañu essayé génn Sénégal tamit c' très important. Mhm. génn sa dëkk essayé dem comme Ivoirien ñu ñuy def Ivoirien ñoo leen gën dégg tubaab. Mhm. ñoom GIE la ñuy wax yéen fait partie yéen yéen yi comprendre ni tu vas tu prends un Mahfouz jox la exemple rek tu lui dis parle français correctement day wax français correctement parce que daf ko jàng. alors da ngay parler français correctement. exemple laay joxe là je me mis à la peau d'une personne qui parle français mais tey boo jëloon benn Ivoirien si kaw seen moo lay gën a toj ne la moo tax. parce que ñoom dañoo def loolu seen dëkk. Mhm. mais tey ñun boo ñu luyee lan la ñu njëkk wax lépp. man boo ma invité nga ne ma léewal ma du ma lépp. parce que am na ku ma dàq lépp fop dama koy bàyyil moom muy lépp. Mhm. dama jël li mu moom. Mhm. mënu ma nekk maçon nekk menuisier. d'accord à que ma jàng ko. alors la réalisation de tes vidéos le processus se passe comment tu cibles un quartier des zones pour euh, après nga dem fa wala processus boobu. procédure bi comment ça se passe. am na am na étude de terrain. Mhm. Euh, am na de terrain genre su ma ne woon euh, damay jouer benn caméra cachée ay taxi taxi yi fu ñu romb bëri na comprendre nga xool foo xam ne gars yi ñu ma xàmmee duñ ma seetaan. léegi sax si oto bi laay filmer parce que boo génnee rek gars yi bu ne gisee après ñëppay bëgg seetaan comprendre rang idée yi parfois maa koy génnee parfois Zé parfois Toumane parfois Yann comprendre c'est benn groupe la quoi ku nekk da nga am idée léegi dañ naan gars yi bu ñu defee idée bi tey xaw nañ violent tuuti ñu génn violence bi. Mhm. dellu si vidéo boo xam ne c'est ça peut être accessible à tout le monde ñu jógee si loolu demaat ci léeg-léeg comprendre nga genre ay nomades lañ toog duñ toog benn place dañuy on essaie de toucher tout. te temps yi sa caméra cachée maa ngi def ay conseils du jour genre mhm. booy lekk raxasal say loxo ay tu vois dans ces trucs yoo xamante ne maa ngi si yokk quoi vu que les gens ñu ngi koy seeraan mhm. bëgg naa tey bépp parent bu seeraan vidéo bi am am fit seeraan kook doomam comprendre mhm. mooy tax ñu si def conseil du jour jàng bu baax tu veux révolutionner le truc faire de la comédie engagée voilà exactement comprendre yooyu boo duggee si car rapide bul génnee sa loxo booy jéggi xoolal gauche xool droite ne boo yéeg nga yéeg point yi tu vois c'est message yoo xamante ne da koy xeeb mais c'est très important. Mm-hmm. mais est-ce que vidéo ngay def da ngay topp actualité wala par peur nga koy defee nii rek toog xalaat leen la xaaral ma génn def ko. waaw xool ni lii xew na temps bii xaaral ma def vidéo bu mel man noonu damay topp actualité positive. Mm-hmm. ba lu positif la. gis nañ li xew Sine. Mm-hmm. Eh, sa mbokk yi ñu ngi ciy def ay vidéo di ci comédie. mais gisagul la ci ba tey yow. man moom su ma doon def vidéo damay def di massa waa Sine daal. parce que lii xew Chine tey mën na ñëw Sénégal. Mhm. ñaar ñu koy yàlla nag waaye mën na fi ñëw. comprendre parce que tamit lu mu bon bon bon bon bon aux yeux de Dieu des humains. Mhm. amul chinois amul tubaab amul asi asi kii bi éthiopien bi ñu ñëpp ay nit lañ. comprendre te nit yàlla moom la gën a fonk si àdduna bi. Mhm. donc lii dal Chine tey nañ la ñaanal rek ñu ngi leen di masawu di la ñaanal mu dañ. xam nga la wax tamit comédie tamit daal comédie c'est de l'humour quoi gars yi ñu ngi koy wax c'est de l'humour c'est de l'humour mais. man humour yenn humour yi du ma ci bëgg a dugg. c'est ça on ne peut des exactement. man da ngaa gis boo xamante ne dama ci lii jox ma exemple. non jox ma DJ jox ma exemple malheur moo débuté man. doo ko jox non boo posé question non boo de bu ma jaxase gars yi mais affaire comédie diir a diir bi nga xam ne da nga daan ñëw di reetaanloo gars yi gars di la dëkkale sax foo xam ne dëkkoo fa woon mhm. xam nga lu ne commentaire yu ne da nga ko daan liir waaye waa ji féeg la waaye waa ji dunk la waa ji liir la mhm. tey boo ñëwee bëgg a euh, indi comme maanaam tey nga dem si biir bëgg a change na yow léegi daal da ngay si coté côté rek pour yee booy yeeg yooyu est-ce bi nga amoon di ko amati parce que gars yi ci comédie la gën a bëggee nga koy jàllale yenn message yoo tey jii laa gën a def comédie. mais message yi moom da nga ci boole ay message yoo xamante ni. waaw mais tamit. da ngay wane ni da message tamit. amul sens amul sens oui. mais affaire yi fën comme ça nii rek gars ah. ñaata yoon lañ téye tendance bi def vidéo. faire rire en éduquant quoi. Ah, def vidéo nga xëy fekk si deux mhm. la semaine prochaine ñëpp koy fàtte ah. Mm-hmm. comprendre nga mais genre jamonoy Ebola. Mhm. amoon na fi. Mm-hmm. Ebola comprendre nga. genre defoon nañ si ay vidéo mais temps yi on était pas trop mature. def nañ si ay vidéo mais am na ñu mu atteindre woon comprends nga. Mhm. mature ñoon kiriku loo est là loolu ñëpp si jaar maire bi toog naan loo loo revient woo paa bi donc tu vois ces trucs yoo xamante ne actualité la mais actualité positive am na actualité négative am na. Mhm. donc ñu bu ñuy def dara ñu bëgg di def loo xamante ne temps booyam mu ngi ñuy xëy rek yàlla nag suturaal na ma quoi parce que tey mu naa def benn vidéo boo xamante ne fa la Sénégalais ñëpp jaar bàyyi ma. mais maa ngi sant yàlla boobu ba léegi comme parce que booy door ay erreur rek ngay def mhm. loolu mënul ñàkk quoi ay erreur mu mënul ñàkk mais comme boobu léegi yàlla teg nañu si yoon te tey am na ñu ñuy xalaatal ak ñu ñuy gisal donc bu ñuy def dara dañ leen di laaj seen avis mhm. ñooñu ok c'est bon ñu publier bu neñu c'est pas bon moom duñ ko dugal mhm. loolu la quoi. au Sénégal la comédie est-il un métier boo xamante ni il est jugé à sa juste valeur est-ce que Bon, je pense que ça va. Hein? Au début, on, on pouvait dire mooy li ma la wax rek ay ñoom Saalum tamit dañoo révolutionné affaire yi. Mm-hmm. Sanex Kouthia Sëñ Gagne et autres comme daal dañoo révolutionné affaire bi. surtout mm-hmm. ku su ma ne waaw Diop Fall grand Sanex tamit. Mm-hmm. te koo xool. référence mais yéen est-ce que ëpp leen chance parce que yéen votre chance c'est l'internet. les vues les m et tout est-ce que gisoo ni loolu tam euh, privilège la ci yéen. non loolu atu bu mag la kay. atu mag la si ñun. parce que tey tey ñu si bëri te amuñu woon ay chaîne YouTube amuñu woon ay li doon ñëw rek di jox gars yi di leen produire après bu ñu leen déggatul duñ am ñu duggee wax à part ñu dem si télé yi wax ñoom fu ñu duggee. comme ça ñun ñu ngi sant yàlla moo tax ma ne lépp public bi la rek. ñun ñoo ñu bëgg seen bopp ñu may doole donc yàlla bu mu dañ mais gis nga France da ngay feebar nga dem hôpital mais ça va tu vas bien est-ce que ça t'arrive parfois de de rire nga ne ko non. waaye il faut que tey de Diamètre Debout ah ça bien. nga wax ki wax nii nga dem seeraan ko rek autrement après da ngay wér parce que reetaan dafa baax day faj comprendre nga donc genre affaire yooyu ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy bëgg teg ñu ngi bëgg indi yu mel noonu parce que déjà man am na benn événement bu mag mooy waaj en 2020 bi incha allah comprendre bu mag mag a mag incha allah boo xam ne musuma def événement rek mais 2020 bi moom incha allah bu ci yàlla jàppee bëgg naa ak Rewmi TV ak gars yëpp bëgg naa def quoi mm-hmm. taxaw na ba pare sax. taxaw na mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> très bien. ngeen xam ne ngeen def comédie. Mm-hmm. ay featuring ni ko ñu def benn affaire. ñu ko jox ko gars nga xam ne wala nga woo keneen. mais dañuy def ay vidéo maag Dudu récemment def nañ benn vidéo sama caméra cachée bi mu def récemment. moom moo ko présenté. caméra cachée bi mu ngi nii moo ko présenté maam juste juste mu leer quoi. comprendre d'accord wan ko askan bi wane ko ci la télé du peuple <laughs> asalaamaaleykum sama gars yi ici Doudou Féré vidéo maa ngi di bëggee ñëpp ku si nekk sa tur sa sant ak sa solo YouTube. yéen a ngi fàttaliku vidéo bi. mais commencé. c'est lui qui a présenté la vidéo commencement bi. d'accord juste pour vous dire que. Mm-hmm. ñu ngi def featuring ñu ngi def ñëpp am nañ jàmm quoi. ñoom ñu nu ci tudd léegi nii ay jaw kecc buuba yeneen mm-hmm. booy yooyu noonu. Mm-hmm. di def lu leer di ko tàngal ko mm-hmm. def lu leer di di ko tàngal quoi. yaa ngi seetaan vidéo booy yooyu. waaw tey su ma nee seetaan ma vidéo bu mbaw. je serais méchant. su ma seetaan vidéo jaw munul nekk c'est impossible. après yow doo toog nga am pression ci sa bopp. ne booy yi ñu ngi sama kaw. pression comme lan. booy yi li ñuy def dafa naa naaj sa gaada leen bëgg. ñu ngi sama kaw mooy lan. waaw yow tamit nag. mooy lan xam nga yow nga sa terme yooyu man comp ma ko. genre ñi ngi boo ko déggee mooy booy ñi ngi def li nga xamante ne tey yóbbulatoo leen dara. bi mu fi nekk booy nekk booy ñi ngi def loo xamante ni bi laay jàkkaaroo wax il faut que ñu ñu def vidéo wala ñu ñu di commencé ñu bàyyi jëm esprit boobu. Uh-huh. comme ban esprit lañu war a am. nan laa war a def ba liggéey lu rafet. toog ba dem te du ñaaw. bëri na ay comédiens yoo xam ne tey amuñu dara mais kañ yebu leen. bëri na ay nit yoo xamante si àdduna sax amuñu dara mais kenn yebu leen li nga aar bi dafa garaaw bul gis ni taxaw fii rek nga ne kii dama koy daaneel buñ am buñ am ëpp maanaam idée buñ jógee idée boobu parce que ku taxaw rek bul xam nu ko yàlla sampee comprendre yow concurrence ñaar si yéen ñaar yi yaa xamee concurrence man booy dañ may woo téléphone di ma laaj ay affaire man tey su ma soxla damay nekk comme genre benn daara ji si aar bi comprends nga. non moom am respect ñëpp. Mhm. am entente ak ñëpp. Mhm. parce que booy yi dama leen yéene jàmm. man booy yi dama leen bëgg je les aime. Mhm. j'aime ce qu'ils font dañ may reetaan loo. dama tële sama jabar ji seetaan Bouba Dembaw dama tële sama jabar ji seetaan Jokal Thiam Max Pro whatever comprends nga. donc nañ bàyyi am idée dama jug pour daanal kii parce que bu xam nu ko yàlla sampe comprends nga. genre yooyu. d' on avait beaucoup de choses à se dire mais xam naa dañuy dem ba beneen yoon. alors euh, prochainement incha allah beneen da nga may jaxasewaat ak <laughs> son projet c' le prochain projet non. incha allah c' est pour c' est pour quand. bientôt hein. bientôt on va communiquer les dates bientôt incha allah. on attend. le tout dernier mot de Marfous. yal na jàmm yàgg Sénégal. Mhm. yal na yàlla boole ñëpp yal nañu yàlla musal seytaane yal nañu yàlla musal si yenn journaliste yoo xam dañuy jaxase gars yi yal ñu yàlla jàppal bu baax a baax a baax boo nañu ñëpp Sénégal ñëpp benn la te mënu ko xar ñaar man dudu Jaw Dembaw Maxpro Axel Tati ñëpp benn lañ man Mahfouz jotewuma see kenn bëgg naa leen respecté naa leen am ngeen respecté man donc yal na jàmm yàgg daal on accepte les pics avec beaucoup de plaisir ji tàggool. en tout cas warul wax lim la wax jaajëf rang. C'était un plaisir depuis 16 heures nous étions avec vous dans votre émission Rewmi People amis auditeurs de la radio Rewmi FM et téléspectateurs de la chaîne Rewmi TV tey ñu ngi woon ak Marfous le comédien dañuy dem ba beneen yoon ñu toog fi ak beneen daanaan merci kenn du yéen très bon week chez vous.